jaakaar lool noo ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di siyaare noo ngi leen baal xaq te leen balu àq noo ngi ñaanal mboolem mbokki jullit yépp di ci jiital nag kilifay diine yi nga xam ne ñooy sàmm diine ji di ci jiitalaat Cheikh Seydi Mokhtar Khalifa Khadimu Rasul ñoo ngi koy siyaar di ko dollee ñaanal fan mu gudd waa ànd ak wér gu yaram delluwaat di siyaare mboolem njaboot sëriñ Tuubaa yëpp nag di siyaare itam seex yi sëriñ Tuubaa yi waaye di gërëm itam nag téléspectateurs yi nga xam ne ñoom lañu ñu lool ci seen émission bi nga xam ne baaxoon ngeen koo am waxtu jot nu baaxoo ko ànd ak yéen xam ngeen ne nag équipe bi nga xam ne ñoom laa àndal ci liggéey bi mooy équipe bi ma baaxoo àndal bu ñu demee ba ci mujj gën naa leen xamal équipe bi ma àndal waaye daal tey noo ngi ci benn histoire boo xam ne mi ngi xewe woon ci benn dëkk bu ñuy wax Kàngaarloo yéen gis na nag Kàngaar Loob dëkk la boo xam ne dëkku cosaan la di dëkku diine di dëkku gor di dëkku lislaam mu amoon fa nag benn xew-xew bu yéeme boo xam ne dañ koy nettali bésuñ jon yàllay tey ci diggante ñaar ñoo xam ne dañu doon sëy muy soxna su ñuy wax jobbe ak góor gu ñuy wax sàngoone yàlla dafa dogal ñu sëy lu dem ci fanweeri at te amuñu takkandeer loolu nag nekk aw naqar ci diggante soxna jobbe ak borom këram sàngoone saa ngoone lu mu yaakaar ne su ko defee jabaram ji am doom def na ko waaye lu mu def rek mu mel ne dafa gën a tëju soxna si itam di jobbe def na lu ne ci këru àdduna waaye lu mu def rekk mu mel day gën a tëju ba dafa mujjoon nangutu la dem ca teen ba ndax li ko moroomam yi di reetaan bu fa demee ñuy kobasaate naan jigéen bu amul doom mën nañoo wax ne du jigéen ju baax nangootu dem ca teen ba nangootul it ànd ak ay moroomam demu xew su amee xew muy dem yéen da ngeen nelaw yéen yéen ngi xoole kon seeni i bët sew rek ñu amee xewu ñuy dem dañuy bàyyi ba ña nga xam ne dem nañu ba dëpp ñu soog a dem maamanoo maaman bu ne sangoo ne dem na fa su demee joxe la mu am luñ ko defal na ko jox ko soxna jobbe mu naan su ko defee mu mel ni dafa gën a tëju loolu nag mu di ko def ba li olof di wax dàcc nga xam ne dàcc la nee na daal léegi naa muñ ndax maa ngi sama juróom-ñaar fukki at jobbee ngi ci juróom benn fukki at ak juróom kon doom wees na suñu diggante damay muñ waaye nag mu mel ni wolof am na lu muy faral di wax nit ku ne sa genn walla yaako moom genn gi say bokki bopp ko moom bokki it te koo bàyyi rek ku ñu dégg ne borom xam-xam la yebal nañ fa sàngooni ba am benn borom xam-xam bu yéeme boo xam ne ku doomam war a nekk ci biiram allah kulli xaalin dana fexe ba déeyóg boroomam def ay xarga foofaam ba doom ja am ñu dikk nag wax ko Sangoné ne ko am na benn boroom xam-xam bu ñuy wax dumu nanke xam-xamam bu ñaw moo tax ñu koy wooy dumu nanke fexeel ba dem ca soo ca demee bu la ñaanalee soxna jobbe dana am doom bu doom nekkee ci biir bi mu ne ah man daal taay damaa demati waaye nag ñu koy man mane rek di ko man manee ba mu nekkoon naa dem ndax li ngeen wax rus naa leen ngeen am yéene ju toll ni yéene ji ci man di ma ko wax ma gàntal daal di ñëw ci dumu nànke nuyoog moom waxtaan ak moom xamal ko ne ko man dey dama am soxna soo xam ne juróom benn fukki atam mat na ba tegal man mii boroom këram am na juróom ñaar fukki at maa ngi ko takkoon ci fukki atam ak ñett waaye daal ba nëgë ni mënuñoo fexe ba am takkandeer fu ne def naa lu nekk def naa ko demoon naa sax ba daj waaye samay bokki bopp ñoo ma tëë bàyyi bañ ne ma am na fi ku ñuy wax dumu nanke gan la fi waaye fexeel ba mu ñaanal la loolu nag moo ma indi dumu nanke na ko génnal mbaar mi nga dem ca buntu kër ba toog ca ba ma woola sàngoo ne génn dem toog ca buntu kër ba mu nànk des ci mbaar mi ab diir ba sàngoo ne yaakaar ne du mu nànk daf koo fàtte mu daldi koy woo mu ñëw mu ne ko gis naa ne sa jabar benn doom la war a am ci àdduna doom bu góor la itam waaye dangeen di juuyoo nag suy juddu ngay saa ngóone na ko jaral na mu ne ko ah xool nga ko bu baax mu ne ko mën naa am doom ndax bu dul loolu gàcce gu dul fay laay yor gannaaw nag dana juddu ba ma teg suma bët waa dëkk bi teg ci seen bët suma ma faatoo baax na mu ne kon baax na demal ba suba nga dellusiwaat suba cooy bala ngaa ndékki nga ñëw fi sangoone walbatiku daldi di dellu siwaat këram naka la fanaan asamaan set mu ñëw suba teel ñëw ci dumu nànki dumu nànki ne ko ñëw nga mu ne ko waaw fekk na bind na saafara si muy bind ba def ko ci genn leket mu dikk mu jël saafara si jox ko na ko sol ko ci bitéel soo demee nga togg ci ab laax laax ba nanga nga bàyyi ba bëccëg nga dem ba ci gën a taatu daqaar ca xàll ba nga teg ko fa te yóbbaale ndoxam raxasu ak ndoxam nga lax ndiku boo demee teg ko fa dem ñibbi sa kër ba ca ëllëg sa soo dikkee nga fekk laax bi daañu ko lekk nga jël ndox mi yàlla ngi leket gi ba mu set nga sangoo ko naan sa jabar dina jël weer sangoo ni daal di ñëw ci kër gi daal di jël saafara si ñu liggéey ko laax bi daal di togg laax ba laax bi ñor mu yekk ko ci ab këll daldi nag upp ba mu sedd mu tànk ndoxum raxasu teg jël ndoxum naan teg ci muy ndoxam nga lax ndik tegale nag raxasu mi ak ndox mi nga xam ne mooy ndoxum naan mi daal di upp yenn ko ñëw ba ci àll bi am na fa daqaar goo xam ne ma ngi ca ginnaaw dëkk ba ca daqaar googee la ñëw yenn ku fa këll ba nag dellu këram dem fanaan asamaan set saa ngoone ñëwaat ci àll bi ñëw ca daqaar gi fi mu tegoon nag ndab li bi mu dikkee ubbi ndab li fekk ñu lekk laax ni ko ko du dumu nànke waxe woon mu raxas nag këll bi ba mu set mu daal sol ci biteel jël ay dabam wëlbatiku ñëw ci kër gi bi mu ñëwee ci kër gi nag la daldi di bàyyi ba guddi mu jël ndox mi def ko ci ndab dem ca wanag wa daal di ciy góox sangool ci des daal di wëlbatiku ñëw tëdd fajar jabar ji jóg toog sangooni ne ko eh foo nekk yéenoo tëdd ami nan moog day léej ah doo xool fii jabar ji jóg toog sango ne ko waaw jobbe lu xew mu ne suma tànk bi day metti mu ne ko metti mu ne ko waaw waaw daanaka daal ba ma tëddeeg léegi nelawuma tànk bee metti sama wóom bi di xasan rek wokk naa ko ba mu dagg te mu ne ko ah, wutal dara diw ko ci du dara dafa xasanaan rek mu def daal tëdd waaye jabar ji mënul fexe ba nelaw di wonk ba fajar say xotti mu def ak taab ci wóom bi taab gi ñu fàttal ñaari fan ñetti fan taab gi gën a newi ba ñeenteel ba taab gi bënn benn xale bu ndaw génn ci xale boobu nag jaaxal na saa ngoone mi baayam waaye jaaxal na jobbe mii yaayam waa dëkk ba ku ñëw seet si soxna jobbe ci taab gi rek soo dikkee moon la doom ji ñu naa lii dee neexul ba neexul mooy jëfi yàlla nga xam ne xale bi jëfi yàlla jooju lañ ko tuddee la waxoon nag moo am xale bi juddoo bis ba dellu si waat ñor koo ngénte ca la baay ba biir bu metti daane ko ñaari fan lañ ca teg baay bi gaañ muy sàngoone xale bu des fa nekk yaayam ak waa kër ga ku dikk rek seet si soxna Jobbe na ko ana jëfi yàlla mu ne ko mi ngi fi loolu tax xale bi moo tax mu tudd jëfe yàlla muy wéy nag ke di dem moom xale bi de di màgg ci wetu yaayam yaayam nekk fa yore jëfi yàlla nekk fi ba yàlla dogal yaay ji li wolof di wax def na fa ñeenti weer gannaaw bi yu tegal yàlla dogal nag muur na ba summi mu am ñu bari nag ca dëkk ba ñu ko bëgg waaye ku dikk rek mu ne damay noppalu ku dikk seetsi ko rek mu ne damay noppalu ba def fa lu mat ñaari at jàpp ñetti at ba nga xam ne jëfi yàlla fi mu dëgër na xaw naa nekk xale lu góor bu dëgër toll na léegi daal ci juróom-ñeenti at soxna Jobe yaay ji am na koy bëgg ku jóge dëkk boo xam ne moom itam dëkk cosaan la ci dëkku gor ci dëkku lislaam ci dëkku diine dëkk ba moo di nduluñ nduluñ googu nag am ko fa jóge ñoo gisee ak soxna Jobbe xamal ko ne ko dama laa bëgg soxna te yàgg naa laa gisit nag dangaa nekkoon cib sëy waaye ma gis ni nga doon sëyee ak saa ngóone sëy bu rafet yàgg naa di wax ne kii de koo takk am soxna gannaaw nag yàlla dogal na liggéey nga foofu ba sa liggéey wàcc na kon sañ na maa feeñal sama bëgg te bëgg naa la soxna Jobe na ko jàkk ba yàgg mu ne ko ah ni ma ñëw wax nañ ko day bari na waaye dama mas di wax damay noppalu waaye gannaaw xool nga nag ba xool ba nga xam ne doy naa la nga jóge nduluñ ba fii di ma seet si du ma mën lu may nangul la bëggeel kon waxtaan nag samay bokk sama nijaay fi nekk waxtaan la moom ak samay mag ak sama yaay sama baay gaañu mu ne ko baax na muy dox nag diggante bi waxtaan ak ay bokki soxna jobbe ba ñooñu jubóog moom ñu ko soxna jobbe soxna jobbe sa moom nag amoon na ñaari soxna laata muy takk soxna jobbe amoon naag soxna it ay doom ay doom yu góor ñuy def nag bu ñu toogee ba asamaan set gone yi dajaloo ca pénc ma di fo jëfi yàlla nag dem na ba gimmi waaye mi ngi gimmi nag ci kër gi nga xam ne moo takk yaayam ndax moom xamul baayam bàyyi jiit leen boobu la bu ñuy fo ca pénc ba mujj yàgg xale yi ne ko jëfi yàlla yoo xanaa mënoo dem defi la sa baay daan def te bàyyi noonu nun sunu baay lam daan def te moom jàppoon na ne mook ñoom ñoo bokk benn baay foogoon na ne kii yor yaayam mooy baayam kon bu ko xale yi ne demal defi la sa baay doon def te bàyyi noog sunu baay lam doon def loolu nag moo ko jaaxaloon bañ ko jëkkee wax xale yi dafa daldi di xeex ak ñoom daldi fay jooy ñëw ci kër gi yaay ji ne ko waa jëfi yàlla lan la mu ne ko dara yaay mu ne ko aha kay wax ma lan la mu ne ko du dara yaay ji ne ko waa demal sangu ji sa ginnaaw gaa ngi taq suuf demal sangu ji te nga ñëw nu añ mu dem sangu ji dal di ñëw ñu añ bi ñu añee ba noppi mu toog ba tisbaar jàpp tàkkusaan mu ne yaay maa ngi dem penc mi ñëwaat ci penc mi di foog moroom yi di fo ba yàgg moroom yi dellu ne ko jëfi yow li la waxoon suba da nga koo déggul waxoon nañ la ne demal defi la sa baay doon def te bàyyi noog nun suñu baay li mu doon def jëf yàlla daal taxaw xool xale yi ñu maase ci benn baat bi ñoom ñëpp kàddu gi genn la jëf yàlla jóge fa ñëw ci kër gi ba mu dikkee nag fa dugg ci néeg bi tëdd na ceel yaay ñëw laaj ko muy jooy wuyuwul mu ne ko jëf yàlla looy jooy muy jooy rek yaay ji naxtaan may ko wogg jox kom soow lu mu yaakaar ne bu ko defee rek jëfi yàlla noppi def na jëf jëfi yàlla nekk fa tëdd ba nelaw fekk ko mu nelaw reer jot yaay ji na ko jëf yàlla jugal reer mu ne ko suur naa yaay ji wax wax mu ne suur naa ñu fanaan asamaan set yaay ji jox ko ndik jëfi yàlla ne suur naa yaay ji nag jaaxle ci jëfi yàlla xamul ndax baay ba lay xalaat xamul naqar wu mu am ba tax nangutu la lekk yaay ji am ak jaaxle nag lool daal di bàyyi ne lii de bu naree wéy damay delluwaat jàkkaarloo ga ma jóge woon sëy si fi ndax mënumaa ñëw nduluñ ji di fi gan indaale fi doom doom ji ne du lekk du naan kon dama yaakaar dëkk bii la bëggut asamaan set jëfi yàlla demaat ca pénc ma ndax mënuta ñàkk a foo ki moroomam te mu ñëwee ci pénc mi nag di fo ba yàgg xale yi dellu taxawati ñoom ñëpp rang jàkkaarloog jëfi yàlla ne ko waa yow jëfi yàlla néewuñu la woon demal defe la sa baay daan def te nga bàyyi noog sunu baay li mu doon def wax nañ la ko waxat la ko la bàyyi noog sunu baay li daan def ta nga dem defe la sa baay doon def jëfi yàlla na xol ba jeex mu tëb sangoo caa kenn xaw koo gañe nag morom yi ñëw sot ñu xeex fa xeex bu metti jëfi yàlla ñu daal koy atte wommat ko nag indi ci yaayam ne ko soxna Jobe sa doom ji day dañoo fekk xale yi sot ko dóor ko ba muy bëgg a dee mu ngi nii soxna Jobe ne ah man de maa ngi bëgg a jaaxle ci jëfi yàlla mi daal di koy laaj di ko laaj nag sonal ko jëf yàlla ne ko waaw yaay xale yi dama def su may foog ñoom ba yàgg ñu ne ma demal defi la sa baay doon def te bàyyi ñoo sunu baay li muy def ma bëgg xam yaay sama baay mooy kan ak lu mu daan def ndax man dama defe woon ne maa xale yi ñoo bokk benn baay te ñoom boo ba léegi saa yu may fo ñu wax ma ko ma bëgg xam nag sama yaay sama baay lu mu doon liggéeyee yaa na dënn di xool ji yàlla ba yàgg rongo ñi dàq di yàlla taxaw di ko xool rek yaay ji jooy ba sërxët jël la fu kumbaam fopp daal di xoolaat jëfi yàlla xool ba bët lewet jëfi yàlla ngi taxaw rek yaay ji wëlbatiku daal di dugg ci néeg bi ubbi gaal fekk ca bennam laxas ab ëmb mu jël ëmb bi làqarti ko gis ci xalam mu daal di ŋàbbu xalam gi ñëw ba ci jëfi yàlla fi mu taxaw ci ëtt bi mu ne ko jëfe yàlla mu ne ko naam yaay mu ne ko sa baay xalamkat la xalam gii la fi bàyyi woon ci àdduna gannaaw xalam gi ab sàcc la woon kon da nga doon laaj sa baay lu mu doon liggéeyee sa baay xalamkat la ab sàcc la woon jëf yàlla taxaw na xool yaay ji ba yàgg mu ne ko yaay lii war nga ma ko teel a wax bu yàgg soo ma waxoon ne ma sama baay xalamkat la woon te sàcc la kon ba léegi jàngi naa xalam jàngi naa sàcc waaye baax na yaay ji ne ko des na mu ne ko lu mu des yaay mu daldi di fay jóge duggaat ci néeg bi moom yaay ji ubbiwaat gaal bi fekk fa benn sagar buy fase mu jël ko ñëw ci kanam jëfi yàlla daal di koy fecci fekk ci ñetti dërëm mu ne ko jëfi yàlla mu ne ko naam yaay mu ne ko sa bàyyi alali addunaam yëpp lii la fi bàyyi xalam gi ak ñetti dërëm gi lii fi sa baay bàyyi ci alal léegi nag yaay doomam yaa koy doon yow dong la am kon xalam gaa ngi ñetti dërëm yaa ngi jëf yàlla na ko baax na yaay asamaan set jëf yàlla takk ay bagaasam def ko ci mbuus takk ba mu dëgër mu dikk ne yaay mu ne ko naam mu ne ko maa ngi dem jàngi la sama baay doon def sàcc ak xalam yaay ji ne ko waaw jëfi yàlla yow <clears throat> ci kan nga dem mu jàngal la xalam mu ne ko xaw ma ko de yaay damay dox ba gis ku mën a xalam rek mu jàngal ma xalam ndax doom ju nekk nag tëbinu bàyyi mooy raqandigam mu ne ko waaw jëfi yàlla sàcc noo koy jànge ji mun na ko yaay loolu yomb na jëlloo mu mut fexe ba kenn du la gis lu moo dig càcc mu ne ko waaw mu ne ko naam ku ma ko jàngal daal di wëlbatiku yaay ji ne ko jëfi yàlla da nga na toog ñuy gëstu laaj ku mën a xalam ci réew mi su na ko xamee nga soog caa dem mu jàngal la xalam waaye di jàng metti moo xam ne xamu ku la koy jàngal xamoo ci ban dëkk nga koy jàngi ji ndax loolu wóor na mu ne ko yaay yi teg na ñëw jaasi bàyyi rek ma jàngi xalam mu ne ko ak ah kon baax na demal fi ñëw ak jàmm muy dem yaa ji taxaw di ko xool jëfi yàlla ngay dem yaa ji taxaw di ko xool ba noppi koo séen daal di ñeewanti nag xolam njureel ba dugg ci mu daal di jooy ndeysaan dugg ci kër gi dugg ci néegam tëdd di jooy jëfi yàlla dem na dox na ñaari fan ba dugg ñetti fan mu xëy nag di dem ba ci diggante dëkk ak dëkk mu daje fa ak góor gu màggat sikkim ba weex tàll bi jaaw góor gaa ngi dëpp tengaa di ni man yor ab sikkimam gàddu mbuusam mu dajeeg moom daal di nuyu moom ne ko xale bi nanga nga def jëf yàlla na ko maa ngi fi rek mu ne ko foo jëm mu ne ko man de xaw ko góor gi ne ko xamoo ko mu ne ko déedéet mu ne lu la tax a jóg mu ne ko jàngi métier mu ne ko ban métier ngay jàngi mu ne ko xalam laay jàngi ak sàcc góor gi ne ko subhanallah xalam ak sàcc mu ne waaw mu ne lu tax mu ne ko moom la sama baay doon métier te doom ju nekk sañ naa tëb tëbinu baayam ma tax mu bëgg koo jàng góor gi ne a ah, doom demal yàlla ci yàlla dimbali ñu dem ba bëgg a weesaloo góor gi delloo ko ayuwaat jëf yàlla dëpp dajee góor gi góor gi ne ko dama la bëgg a dénk ñetti kàddu waaye ñetti kàddu yi nag dama la koy jaay ñetti kàddu mooy ñetti baat waaye dama lay jaay ñetti baat yi dama la ko may xale bi taxaw ba yàgg mu ne ko ah waaw la koy jaaye mu nekkoo ko baat bu nekk ab dërëm xale bi ne ko jaay benn baat mu ne ko soo jógee fii tey ku la wooti ak ku mën a doon nanga ko wuyu bul tànqam la bu woote te bul gànt la bu woote jëfi yàlla ne ko d'accord daal di génn dërëm jox ko wëlbati ko mu dool ne ko maam ji góor gi taxaw mu ne ko jaar mi beneen baat mu ne ko koo tànnati na ko dimbali ku la yaakaar te bul tas yaakaaram mu ne ko baax na yëkkati benn dërëm bi jox ko ñaar dërëm ya dem na benn dërëm a ca des jëfi yàlla walbati ku bëgg a tàggoo góor gi dox ñaari tànk ñett tànk mu geesu seen góor gay dem mu dabaat ko ne ko maam ji mu taxaw mu ne ko jaayaat ma beneen baat mu ne ko mu ñetti dërëm mu ne ko waaw mu ne ko koo jekkut na ko yërëm koo jekku na ko jéggal te bul ko jekkale mu ne ko baax na maam daal yëkkati dërëm jox ko ñetti dërëm yi mat na jëfi yàlla daal di nag loxoy kese léegi la yor mi ngi ñetti baat daal yiñ ko digal waaye yorutul benn dërëm nag bu mu yóbbuloo mu nga topp yoon way dem nag di dem ba yàgg mu dégg a woote boo xam ne jaarul ci aw tur daf koo xëyi ko xëy xale bi jëf yàlla xool ndey joor gisul kenn mu xool càmmuñam gisul kenn mu ne ah waaw man jëfi yàlla ndax damay bëgg a waaru gott bii nga xam ne ay rabi àll doo nga fi nekk dëkk jegewu fi séenuma fi kenn tañ di ma woo ki woo kan la ndax fii gisuma fi kenn mel na man laa fi gis kon su ne xale bi kon man lay wax daal ne ak kooku de du ma wax ak moom daal di continuer doxaat benn jéego ka ko waxoon ko waxaat ne ko jëfi yàlla mu ne a ah, kii sama tur la jaar kon man lay wax kooku de kon xam na ma daal di geesu ci kanamam seenul kenn mu xool ci gannaawam gisul kenn mu xool ci kaw garab yi séenul kenn mu ne déet man damaa jommi kon kon njuuma la njuuma nag dégg naa boo ko wuyoo mu wàññi la waaye boo wuyuwut du la wàññi ali kon na dem ka ko woon del na ko jëfi yàlla mu taxaw na na nag du wuyu waaye dina xool ba gis ba xam ki woo daal di xool bu baax séen nag garab yu jàbba sooju yu lëndëm garab yu sëkk mu xool bu baax ba séen fa ñetti nit yu taxaw lañu sol di ay couleur lii mbub mu xonq la lii mbub mu weex lii mbub mu ñuul mu ne ah lekkee ay nit la lii mën a am waaye du ma leen mu ji de nit ku ma xamul ku mu doon nga wooma ci àll bii ab dëkk nekkul du ma fa dem. continué dem ni tuuti. xelam xalaat ne kat góor gi jaayoon na ko ne ko ku la woote na ko wuyu kon su rombee leen kon la ko góor ga waxoon gëmu ko te defu ko te su ko deful leneen mën na ko caa mu ne ah naa leen wuyu rek góor ge waxam waxe mag la te waxe mag mag du yàlla waaye dafa yàgg yàlla naa dem. daal di nag jaar ci digg ñax mi jaar ci garab yi di ñurux ba dikk fekk ñett nit ñi nga xam ne ñoo ko woo ñu ngi taxaw ci benn wetu teen teen boo xam ne jàjj la jàjj mooy teen bu ñu gas ba mu sori lool ci suuf te bënut nga xam ne ña ko doon gas dañoo mujj toog te bàyyi loolu moo di ak jàjj mu ngi fekk na ñooña ndeke ñett sàcc lañu ñu sàcc woon yàgg ci càcc ga nag bu bari alal nag lool nga xam ne tund yëpp ñoo ci dàq sàcc ñu sàcc nag ba am lu mat ñetti saakoy or saako yu mag nga xam ne kenn ku nekk saako ba nga yor bu doon ci jamono ji xaalis boo ko xaymaa dafay nekk ñetti téeméeri million mu mel ne kon ñetti saako ñu nekk na juróom-ñeenti téeméeri million saako yooyu nag bañ ko amee dañ doon dem kenn ku ne gàddu sab saako waa dëkk ba yëg leen leen dàq xamatu nu ñuy def saako yi ñu sànni ko ci biir teen ba ñooñu di ko xool xool gis ñu saako yi ñu ne ah kon ñi jëluñu ko léegi nag boobu ñooñu dem ndekete ki jaar ci turub turam nag sàcc boobu moom nga dëkkoon moom foofu ñuy wax kàngaar lool nga xam ne fa la xamee nag jëfe yàlla moo tax mu jaar ci aw turam ñu daan ne ko jëfe yàlla dañoo bëggoon ñu yor la ci teen bii am na saako yu fi nekk ñetti saakoy or la nga génne ko ñu yeew ko ci buum gi ñu wëgg ko su génnee danañ la sédd ci alal loo xam ne danga nga mën a wëlbati ko fi nga doon dem da am alal joo xam ne mën nga caa dund man caa tedd ba keroog gay faatu jëf taxaw ba yàgg mu ne ah waa ca yor leen mu daal jël na genn buum bu dijj am na garab gu fa dend ñu jël catu buum gi yeew ko ci garab gi daa taatu garab gi jël leen cat li nag daal koy laxase nag jëfi yàlla laxas ba mu dëgër ñu ne ko nag ca sàmbaawul sàmba nag mooy téye ci buum gi yooru jëm suuf di fi yàlla sàmbaawu ñu topp ko mu sàmbaawu sàmbaawu ba ak jël nag saako yeew ci buum gi ñu wëgg saako ba génn ñu teg fee dellu yoraat nag buum gi saako bi buum gi ñëw ñu jël saako bi yeew mu wëgg ba saako bi génn ñu jël teg fee jëlaat nag bu ngi yoraat ci biir ba mu agsi jëfi yàlla yeew ci saako ñu xëcc saako bi ba saako bi génn muy ñetti saako ñu daal ne xam nga nu ñuy defa nañ dem bàyyi xale bi ci biir pax mi muy bàmmeelam ndax buñ ko génnee li ñu ko digoon ñu ko jox te kon sunu xaaj day manqué kon nañ ko bàyyi ci biir fi lay faatoo ñu daal ne ñu dem nag bàyyi fa buum ga jël nag seeni saako dem ci fi yàlla nekk ci biir teen ba gisaatul buum gi déggatul ay wax mu yuuxu kenn wuyuwut mu neex fa nag di jooy di yuuxu waaye ab àll kenn wuyu mu xam ne nag dee dikk na ndax fii mu nekk kenn du ko fi fekk ndax kenn xamu ko fi ñu fi dugal dem nañu jëf yàlla nekk ca biir teen ba bu toogee ba waxtu lekk jot benn boolu añ dana ñëw bu def añ bu neex mu lekk ba ndox mi ñëw mu naan ñu jox ko ndox mu def lépp lum mu bëgg a def ndab la dellu ndox ma dellu jëfi yàlla ne fa ba jant bi so li ko xamal jant bu so bi itam mooy rabi àll yi nga xam ne ñëw nañu di naan si bu ndikkee ci pind bi la taxaw teen bi amul ndox mu xool ci pind bi ci biti seen bopp gaynde xam ne lii gaynde la mu xool xam ne lii ñay la ci la xamee ne jant sona mu nekk ca biir teen ba guddi keroog jaaxle lool yërëmtalu lool ba asamaan set bi asamaan setee mu xalaat ne moom day dee ana lan moo ko yëgal yaayam waaye nag nis tuuti mu am ngelaw lu baree bare bare bari luy riir def yàlla ne waaw lii day bëgg a tawam loolu nag ngelaw li nag moo riir bari ba jël buum bi surufaat ko ci teen bi muy buum gi nga xam ne moom lañ ko doon yoor jëfi yàlla jàpp ci buum gi te ñooñu dañoo yeewoon nag buum gi ci genn garab kon buum gi du ñëw jëf yàlla tey ci buum gi nag di wëgg di ñëw ci biti di wëgg di ñëw wëgg di ñëw ba génn ci biti naka la génn nag daal di xool gisul ñenn ci ñi nga xam ne ñoo ko dugal ca teen ba jëfi yàlla daal di fay jóge nag waaxu topp yoon wi nag ma ngay dem nag aw fi mu awoon rekk bu jëkkoon jubal rek di dem di dem ba yàgg mu jub ab dëkk dégg nag ñii dëbb dégg ñiy wax mu ne lii de ab dëkk la nes tuuti mu xool ci wetu nday jooram seen ñett ña nga xam ne ñoo ko jiwoon ca teen ba ñu taxaw ci genn ker garab di wax taatu garab ñu ne waaw ñun naka la ñuy def dëkk bi de bu ñu fa demee ak sunu saakoy or yii danañ ñu rey nangu nañu fexe ba dugg fa guddi ñu daal di xool gis nag ay armel seen wet ñu ne léegi nu ñuy def ñu ne lu yomb jëf yàlla ngi taxaw rek di leen déglu mi ngi leen di gis nag waaye ñoom gisuñu ko ñu ne léegi nañ jël saakoy or yi dem ca armeel ya gas lu mel ni bameel saako bu nañu def ko ci bàmmeel suñu demee ba def ko ba noppi dem ca dëkk ba toog fa ba xaaju guddi ba nga xam ne ñëpptëdd tëdd nañu ñu soog a dikk nag sulli or bi ñu daal ne waaw waaw jëfi yàlla ngi taxaw rek leen xool ñoom gisuñu jëfi yàlla waaye jëfi yàlla mi leen di gis ñu daal di gas nag lu mel ni bàmmeel gas ba mu xóot fu nekk ñu def fa ab saako suul ko nag muy ñetti bàmmeel jëf daal di xool ba gis bàmmeel yi daal di fay jógee ñëw ci dëkk bi daal di daje nag ak ñaari dagi buur mu laaj leen kër buur ñu joxañ ko kër buur ba mu ñëwee kër buur la nuyoo dag yi na leen buur laa soxla dag yi nag daal di koy def li ñuy wax piloté fexe daal ba mu gis buur mu ñëwee nag ci buur nuyoog moom buur ne ko yaay kan mu ne ko man maay jëfi yàlla mu ne ko foo dëkk mu ne ko kàngaarloo nduruñ nag laa jóge waaye kàngaarloo laa dëkk mu ne ko loo tax a jóg mu ne ko damaa jàngi woon xam-xam ba yàlla dogal ma am xam-xam war a ñëw nag seet nag ban buur laay àndal lëg yi mu ne ko xam-xam la mu ne ko xam lu picc wax walla mbaam ŋaax ko wala fas ñaxal ko xam naa ko mu ne ko a ah, xam nga waxi picc mu ne ko waaw waaw lu picc wax xam naa ko lu mbaam ŋaax xam naa ko lu fas ñaxal xam naa ko mu ne ko déet picc yii yii nii nii ramutu yeeg mu ne ko waa ji picc mu mën a doon rek soo dee ay donc la wax xam naa ko fi koy waxee rek mel ne picc jékki-jékki ne ciib ciib bur ne ko picc picc sab na lu mu wax mu ne ko nee na ku dem ca armée ñetti bàmmeel la nga fa yoo xam ne soo ko wàqee gis muy or mu ne ko ah mu ne ko waaw bur ne ko ba loolu loolu mu leer daal di woo ñetti dak ne leen ànd leen maag ngóor si ngeen dem ci armée ya nee na fa am na ñetti bàmmeel yu fa nekk suñ ko wàqee or lay doon saa ko lay doon daal ne ko nag na ngeen ko xool su ngeen ko wàq si gisu leen oor nag bu mu raw ngeen indi ko ma ray ñu ànd ak jëfe yàlla ñëw ci armel yi bi ñu dikkee nag mu won leen nag ñetti bàmmeel yi ñu wàq benn génn saako oor wàq beneen génn saako oor ba ñetti saako yëpp génn dag yi gàddu saako yi ñu ñëw ci kër gi buur ne naka mu gis ngeen saako yi ñu ne ko waaw waaw a gis ngeen saako yi ñu ne ko saako yaa ngi fees dell ak or ñetti bàmmeel yi mu waxoon ñetti bàmmeel yëpp lañ gis mu ñetti saako buur na nag kon yow jëfi yàlla ni may def yow mooy dama la fiy téye nga nekk sama adjoint lépp loo bëgg ci alal dinaa la ko jox waaye man kat sama nguur gi am naa koy wax lu ne làkk lu dégg naa ko waaye nag koy wax ci picc ak i mala mosuma ko am comme yow mënu ma laa bàyyi nga dem faaw dama la fi téye nga nekk sama adjoint kon xam naa ne xale yi euh, ni ñuy def mooy foofu nga xam ne fi lañ téye nag jëfi yàlla ñu itam fi la ñuy téye nag histoire jëfi yàlla digganteem ak buur su ko defee ma woon ak seen bàjjen mu ñëw ci bataaxel yi nga xam ne téléspectateurs yi yónnee nañ ñu ko kon acca kon seen bàjjen la dugg si waaw koy bàjjenu xal yi nga nuyoo xal yi salaamaaleykum allo maaleykum salaam bàjjen acca mun leen a wax waxaat leen ko waaw kay mu ngo kon nag euh, bataaxel bi ki ñu ko yónnee sëriñ Daawuda Jeng di eh, kilifa diine nekk ci Touba Njaareem moom ak ay soxnaam nena ñu ngi bàyyi xel ëttu démb di ko rafetlu te it nee na émission la boo xam ne day fàttali ni ñu cosaan waaye day doolee xel sëñ Daawuda Jeng Touba Njaareem jërëjëf ak ban kii euh, Cheikh Sow pël bu dégg wolof nekk marché Ocass moom suñu auditeur la bu ñu yàggal moom itam nee na man day Ibrahima làkkat laa alpulaar laa waaye nag yaakaar naa ne euh, histoire bi maa ko gën bëgg wala fi ñu ngi koy wax seen kàllaama ndax nee na day taxa am jom day taxit mën a muñ te day tax a biir Cheikh Sow marché Ocass di pël bu dégg wolof jërëjëf ak ban mhm. waa kay kii euh, Njaay Pëna Njaay Pëna vulgarisateur la nekk ci euh, Touba yoonu Umul Xuraa ci koñu kër Serigne Cheikh Béthio Ndiaye Pëna ak Chérif ak euh, euh, naka laati apprenti bi mbind mi daa xaw a sant Diop nag waaye daal li mu ci mën a wax ci gàttal daal nee na moom kuy bàyyi xel émission bi la nee na muy ci télévision bi mu koy seetaane nii wala itam léeg-léeg nee na mu dem internet alazhar touba point com nee fekk ko fa pour mën a seetaan li nga xam ne moo di ëttu démb ak ban bataaxel yi soxna si kat bataaxel daa xoo bari tey ah benn bis des waaw kay kon gis nga euh, bataaxel bi moom itam Mbay Caam Mbay Caam technicien télévision la maanaam réparateur télévision la nekk ci marché bu Mbàkke Mbay Caam nee moom émission bi émission la ndax nee Euh, waxtu wu nekk daf koy delloo démb ndax ne nit ki bu fàttewul démbum dana xam teyam nu mu koy doxale te mbay caam ne cosaan daf koo ñor lool ndax nee na ngor ak diine ak lislaam sunu mag ñi fi nekkoon démb ak bër ci démb dañ ko fee bàyyi ba tax na ku leen di wanaat seen démb rek yaa ngi dellu siwaat mag ña kon nee na émission bi daal mat nay bàyyi xel tey di ci nàmpatal gone yi jërëjëf Mbaye Thiam technicien télévision nekk ci marché bu Mbàkke jërëjëf euh, kon defe naa ne euh, suñu mbokk yi nga xam ne yéen ñoon seetaan xale yi li ngeen def mooy dégg ngeen fi nga xam ne fii la ñu yem nag yéen ci ki nga xam ne mooy jëfi yàlla xanaa xamale rek équipe bi ma àndaloon ci liggéey bi maa ngi àndoon ak euh, sama caméraman yi mu di maam Thierno Faye ak ki nga xam ne moo di sëy eh, Jibril Xulle caméraman eh, ak ki nga xam ne nag moo di Basiru sek nekk itam ci décor bi waaye ñu ànd ak eh, Serigne Cheikh Amar moom itam nekk rësi waaye ñu ànd ak Serigne Soy bu Mbàkke Maar moom itam di réalisateur bi Nogay Mbodj nekk décorateur waaye ñoo ànd itam ak seen bàjjen ah, Ami Samb ñu naa ko eh, Amina Couture kon def naa xale yi kon seen bàjjen mooy na jox bataaxal yi léegi nag eh, xale yi fa tabaarakallaahu ñoom itam gis ngeen leen eh, sëriñ Fallou sama càmmooñ ak yow na nga tudd Awana Awa Diouf mu ngoog Awa Diouf mooy jànk bu rafet bi ma jàkkaar lool dafa xees dafa rafet yow nag ami fay waaw kooku nag mooy ami fay moom itam euh, fay bi biram benn baakaan yow na nga tudd xaddi njaay mu ngoog ak kon gis ngeen ko moom itam ma jàkkaar lool ki ci topp muy ak soxna bintu njaay kon ñooñu mooy ñeen doon defal euh, émission bi ki leen ko doon présenté nag seen xarit seen maam Ibrahima Ndiaye di leen jox nag incha allah daje ci beneen yoon ci internet ak ci télévision ndax xam ngeen émission bi dafay dem ci télévision bi waaye dafay dem itam ci internet ku dem Alassane Touba point touba euh, point com da nga ko fa fekk ku dem télévision itam da nga ko fa fekk du dëgg xale yi kon nag mën a leen jox rendez-vous xëy beneen yoon du dëgg waaw kay jërë ngeen jëf.